diggante sa papa dafa mel ni Choco ñëw na alors soko no stress soko Mo. gaynde maa ngi lay ziar. maa ngi bu baax di la jox sa wàccuwaay. delloo ziar bu wér naka foofu. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu ñu bëri di xaar nga yey yàbbi ci coow li nga xam ne dafa xew diggante Sidi Diop ak Wally Balago sekk njàpp dem na ci soirée Wally daal di koy wax ni sama papa nga Sidi sama papa la ñaan ko oto Sidi ne duma doomu kenn nan nga dundee coow li. waaw xam nga Sénégal ñoom maanaam euh, dañu gaaw fàtte. Mhm. dañuy gaaw fàtte moo tax suma jaar gi baax fii ndax ku fi fàtte ñu fàttalee la. Mhm. maanaam tey xanaa tey la neex di Diop ne moom Waly Seck du papam mhm. mais Sidi Diop bi mu nangoo ne waalee baayam ba léegi. booba jamono la ca la gënoon neex ca moom. bu ñu waxantee dëgg rek di jëmoo. Sidi Diop ak Waly Seck benn lañu ñoom ñaar ñëpp ay doomu sénégalais lañu. yaa ngi dégg. Mm-hmm. waaw ñoom mm-hmm. ñaar ñëpp Sénégal la ñuy jëmmal. Mm-hmm. waaye nit danga koy na li ko yàlla defal. tey Sidi Diop entourage am la war a xoolaat. toogaayam la war a xoolaat parce que mu ngi yàqal boppam. mu ngi yàqal boppam. kon kon yow da ngay dëggal ñuy wax ni Sidi Diop labelam dañ koy jël di ko dóor ci kaw Wally. maanaam loolu yëpp mais fi may dama bëgg daaneel ci paquet bi bala may daaj beneen paquet. ak ca sek parce que Wally Seck noonoowul ak kenn dama bëgg Sénégalais xam loolu. concurrence ak kenn. ndax tey mënoo jiitu nekk pay ba noppi di xëccoo ndaare. tey Sidi Diop. référence la war a def Wally Balago Seck waaye war ko def concurrence. dëgg tey bu ñu demee ba maanaam Sidi Diop di kaas loolu te njabasoo. bu fekkoon tey Sidi Diop may na ko oto. du dem kër Waly Seck di fa yalwaan oto mhm. Waly nag moom mooy doom ji nga xamante ni moom xëy na dafa amul nday ci réew mi mhm. ndax mooy ñëw teral nit ba noppi mu wëlbatiku di ko yàqalu mel ni katame barke de moo jaay gis nañ ko fi baadoola boobu Waly mayoon oto mhm. du ma wax turam ndax du moom ngeen ma laaj dégguma li wax léegi dafa dafa tombe ak may wax nga ne nga lan la moom ah nga ne kan ki ma ah, ki kan la mayoon oto nga ne caat sekk la Waly mayoon oto mooy Thiat Seck Badoo ah, la man su ma la du ma bëgg wax sa tur. Mhm. ndax wax sa tour maa ngi lay yokkal tur. Mhm. xanaa xamoo di wax ci nit. Mhm. yow yaa ngi koy doolel waaw ah, loolu am na Thiat Seck. képp kuy faramaareen waratul tudd turam ci sa plateforme parce que nit da ngay gore. mais pour moo bañ la dévier ci sa cas ngay traité mooy. def naa ni Sidi Diop a tax ñuy wax. parce que da nga ma ko wax nga ni ma léegi Sidi dafa dafa euh, dafa am benn njabootam. bu demoon ci soirée Wally Seck ñaan ko oto loolu yàgg nañu ko def waaw day maye oto mayeegul ñëpp a oto mais man leer na ma leer yàlla wóor na wóor yàlla mu may ko oto du dara ci moom mais tey kuy wàllu yàlla sa dëkk dafa tëggul dafa mel ne ñun ñi nekk Europe nii rek di immigré bu Sénégal ne xool dinañu ñëw Europe nii bay xëccoo dëkk bi tey bu fekkoon tey li ñëpp a di liggéey ci ci ci ci ci ci ci Sidi Diop. Mhm. Sidi Diop apprécié na loolu warul xaar. ba mhm. ñëpp a di jugee foofu di dem di seeti Wally sekk ci seenam di ko ñaan oto. Mhm. loolu rek dèjà maanaam defet la ci Sidi Diop defet bu rëy la parce que tey gisaguñu benn njabootu Wally sekk dem di ñaani maanaam di dem sax ci seen Youssou Ndour naan da ngay ñaani oto wala ngay ñaani ay moto wala ngay ñaani ay engin kon. ñëpp soo mhm. tey li mu yaakaar ne bu ko defee génn ci rek loolu la def parce que xam na ni Wally Seck nit ko baax la mhm. xoolul ko ànd moom ak ku àndul ak moom tey Wally mhm. maanaam Wally dina lakk ñu bëri Wally tey bu dul woon jéggale du ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Omaro ndax Omaro ñëpp xam ne ni baadoola la waaw day ji xëy rek di jaay ay ay bakkanam bu dëgg kon Wally Seck nañ ko may jàmm te xam ne Wally moo fi nekk parce que xolam la ko yàlla di fay may na barki moo njaay Ah, Bana yaa Bana yaa ci ku mu nekkoon du ci Sidi Diop. ci Sidi Diop. Mhm. Bana yaa lëmbal na. Mhm. ndaw rabin na fecc na ba ndigali ras mënul fexe ba Sidi Diop may ko oto. Mhm. benn yoon la dugg ci Waly Seck lëmbal la def rek yëngal xootu taat ba Waly may ko pesero. maanaam doole yi ñoo bokkul yàlla mooy dogal. Waly sekk nekkatul ay woykat neen Waly président la fu mu nii ñu mu àndal nii ñoom Mbaye si Ndiaye ñoom Arma gaa yi ngay dégg nii xaali mbay dogo ñooñu ñëpp ku ci nekk ñii ay premier ministre lañ ñii ay sénateur lañ ñii ay assemblée général lañu doo dégg ñu naan président Wally mhm. foofu la ñu toll de président jàmmi réew mi demal nga liggéey waat nga la dese si àddunaam mhm. muy kan muy kan benn nit la dese keroog eh, bi muy def interview bi ci suba gi moom moo nekk ci ginnaaw muy muy Barito Barito moom la dese te Barito daa bëgg rek sii di jóg ko Europe mu daw def na ay moroomam nii la kaa bi kon Barito gëmul Sidi. non bëggul Sidi Barito sama xarit la dañuy waxtaan ci suuf sama doomu ndey la Barito Wally Seck rek la bëgg xanaa xamoon ñii bañ Wally yëpp dañ ko bëgg. kon li ngi nii mu ngi leer. kon ñi ñu bëri dañuy wax ni ku amul place ci Wally da ngay uh, daw feneen ngir uh, Wally mën la bàyyi xel kon yow da nga jàpp ni Barito ci ñooñu la bokk. Barito ci ñooñu la bokk yaa ngi dégg mën naa ci lim Adamo Bos de Negri ci mm-hmm. ñooñu la bokk. Adamo waaw ndax Adamo da doon jàppale waal yi di mhm. xeexal waal yi di dooleel waal yi mhm. bu ñu demee ba Adamo léegi mhm. moom mooy tuutal waali naan soirée waali bi feesul waaw waali sekk euh, concert bi mu doon def fii amul nit dafa fa dafa faay dañ koo liggéey waali wérul dafa dofat nii naan waali ki mu bokkal ndey ak baay Eh, di moomi gay dani dañoo dagg ween wi lépp di xeex waale xamalu ko waral mhm. parce que dañ ko écarté ci biir faramaareen bi mais nag Soko est-ce que du li ngeen est rek Wally Seck toog ànd ak Wally ànd ak pa ànd ak euh, Adamo ci vidéo am gën naa xam nga barki démb da koo bett Paris mhm. naan kaan waxal Sénégalais yi da nga maa bëgg mhm. Wally naan kaan <laughs> koo bëgg bëgg na la <laughs> koo bëgg bëgg Mhm. maanaam écarté gi nga ko écarté moo ko naqari jamono ji moo tax muy xeeñ muy xeex mariasin mooy sa bige waaye mariasin doom ji ndeyam gërëm la jaaga dafa toog devant tous les sénégalais gërëm doomam mhm. di waali balaa go sekk gërëm ko bay jooy mhm. papa coon bi waali di way dañu ko sant ma la way fubal laa la sant demal nga fubali mënoo way loolu la ko bàyyi ba waxoon waaye ba mu xuusee jàll ci biir gaañi bàyyi ba da ko nangul laataa muy génn àdduna nee na ko léegi ko gërëm ko. Mhm. loolu du bokk ak koo xamante ni maanaam da nga ñëw rek di ko diir mbagg nii te yow amoo ñaanu wayjur ku ko ci mhm. amu na dem wuyu ko. Mhm. na dem wuti ji ko ñaanu wayjur daa am solo. di jëmoo balaa ñuy génn ci coow loolu danga wax léegi Adamo ñu gis ni yéen ñaar comme xaj ak muus sa teg Adamo lu ci ne. Adamo daal baadoolo boo xamante ni respecté naa sax maanaam ñi lay seetaan. tu njar ko rek maanaam di wax ci moom di jóge parce que Adamo mhm. du nit ku baax bu doon ku baax la mhm. du dugal data sénégalais yi ak koy sénégalais yi yàq nit ba dëkk bi yàqu yaa ngi dégg mu toog ni dafa bëgg soko ten ten ko njar soko saaga na fi Ousmane Sonko mhm. saaga na fi Macky Sall mhm. saaga na fi Mame Mbaye Niang mhm. saaga na fi ku ne saaga sama yaay booy bu baax bi roqi si saa wàll nga xamante ne boo demee yaraax dañ koy sukkal di ko raamal tey bu jigéen doon doon ilimaan sama yaay ilimaan lay doon mu koy saaga ay nday di ko xas naan sama yaay day jaay yàmbaa kooku du nit ku baax aada moo moom du nit ku baax waaw ñu bëri di leen jiiñ yéen influenceurs yi que ni dañ leen di jënd parce que gis nañ Soko daal di dal ci kaw Titi nag gis nañ Soko parfois dafay wax ay gros mots Soko day ñaan ki nga xam ne moo di Adamo itam gis nañ ko mu dal ci kaw Titi ak yeneen i artistes récemment gis nañ ko ak Baye Zal yéen influenceurs yi liñ leen di jiiñ que ni dañ leen di jënd ak yu demee noonu. non Adamo dañ koy jënd barke Cheikhou Tidiane dañ koy fay barke Rasulullah yi. mën nga man Soko no naa yëg sama ci kaw. Mhm. ku yor sama ci Sénégalais est-ce que xam nga est-ce que mas ngaa dégg ñu ko doon corrompu wala Sokone dañ ko doon def moom dañ ko fay pour muy saaga diw. Mhm. man du fay ku ma fay may sa pour ma saaga la diw man yow laay saaga ay ndey. est que xam mën nga ma da nga ma mën a limal artiste yoo xam ni ah, dañ o dañ ko dafa dañoo jënd Adamo. dafa am ah. artiste yoo ci xam artiste yoo xam ni dañoo jënd Adamo pour mu waxal leen. waaw ku mel ni Viviane Chidindu dafa jënd Adamo pour muy saaga ndeyu nit ñi Viviane moo fay Adamo. muy daal ci ki nga xamante ni moom mooy rakku Youssou Ndour ji di Aby Ndour mhm. te Aby maanaam mooy caatu famille bi mhm. tey euh, ku gëm yàlla la mhm. Aby Ndour ku yar ay doomam la Aby Ndour kenn mës koo gis mu vidéo wane ay weenam waaye Viviane fi ay weenam barki di moo njaay dafa am loo xamante ni kenn mën ko wax ci télé waaye yàlla moo ñu tiim gis nga tooñ baaxul yàlla dafay bañ ko tooñ yonent bi moo ko wax ci xadis a zulm zulmaat yow nga xiyaam ilal noor Mhm. dëgg nag boo ko fekkee da nga koy wax mhm. wakulil xaq walaw kaana murran wakulil xaq walaw kaana na nafsika Viviane Ndour li mu nekkee du dëgg du yoon sëy ba mu sëyul ak Bouba Ndour la ko tas ak lëkk ëmb yëpp man xam naa lépp waaye man melu ma ne aadama moo di yàq nit duma yàq nit waaye nag bu arrêté wul man maay jël révélation bi ne ko daj te bu boobaa yow di jëmoo yow laay boo jox la ko léegi yow ñu gis la nga dal ci kaw Titi te ku ne xam na ni dañu jiiñ Viviane ci kaw ci kaw Titi nu non Titi moom nit ku baax la DJ moo Titi Titi dama bëgg Sénégal yëpp xam ne Titi nit ku baax la nit ku gëm yàlla la mhm. man daluma woon ci kawam pour pour pour pour lu metti mhm. man dama doon dama doon ruube daal mhm. xam nga man des fois comédien laa ma damay ruube barki de moo a def naa ko sama mag bi Fallou mu xaw maa sax mais après déggoo waat nañ ci biir wax Titi kenn mënul gis vidéo boo xamante ne daggal naa ko ci saagoo ko ci ay ndañ loolu amul Mhm. amul de kenn mënu la ko génnee. Mhm. man ku bëgg titi laa ku jox titi cër laa waaye sow biis mhm. moo nekk loo xamante ni des fois ñun suñuy biir dañuy tooñante waaye tooñante yu ñuy tooñante saaga nday war cee bokk wax ju ñaaw war cee bokk sosal nit ki war cee bokk man dama ko xamal rek ne ko titi sa bëñ yi en tant que artiste bi nga doon war nga mën dem ba Dubaay nga changé say bëñ comme ça booy ree ree gi neex man titi su ma ko bëggoon a xas du ma ko wax ci ay bëñ man titi gis naa ko ba tëg bët soirée Demba euh, Demba Guissé Mhm. man maa ngi toog ah El Hadj eh, ak kii nu ñu koy waay kii eh, Dame Sène mhm. ak eh, booy bo noonu Ibrahima Naaji ay booy yu bëri pas mal de artistes ñu ngi toog mhm. keroog bi ci di ñëwee war a war a war a prestation man maa jug may ko mu toog su doon xas titi xam nga su ma koy xasee te du ma koo ko xasee ndax laago yàllaa ko mu yàllaa koy teg jaam yaa ngi dégg titi lan moo tax saa buy way day téye musuwaar ci loxo bi lan moo tax lan moo tax ñoo leen maanaam ci benn baaraam bi day lumas benn musuwaar bu weex téye ko man du ma toroxal jigéen. Mhm. man du ma toroxal jigéen du ma yàq jigéen ndax mhm. jigéen mooy suma yaay jigéen moo ma jur. Mhm. waaye jigéen ju taxaw ngir yàq ma nag ma yàq la ba kat ñoom yàq yaay teg la fa. soo bëggee naan dara jëlal amul problème. alors ñu tëj euh, ci ki nga xam ne moo di euh, Sidi Diop bi euh, nan nga gisee labelu Sidi Diop. labelu Sidi Diop. Sidi Diop amul label Matar Gueye suba teel moo am label te Matar tappalekat la Matar du liggéeykat tappalekat la day jël booy yi di leen dal ci kaw Wally Seck daale wuñ kafe ko kon fii bi yaa ngi si jàmm xanaa Dakar nga ci dëkk bi nuru nga Dakar de surtout ñu ñuul la de. mi ngi ci leneen Choco dafa neex mi ngi a ma pare ci interview bi damay wax ak mhm. gaynde gi nga wax nekkoon ci Sidi kon da nga jàpp ni Sidi dañu koy utiliser jamono ji maanaam Sidi moom mhm. defalul dara ngir boppam mhm. Sidi dañ koy manipuler Sidi xamul lu def ndax xamul Bercy àddina yëpp di ko seetaan mu sol fa yére boo xamante ne quarante cinq euros lay jar mm-hmm. man su ko nooy sere ruus ko sol keroog bi ma waali di woyal su ko doo saay-saay mm-hmm. yére bi ma soloon la seeree mm-hmm. presque ay douze mille cinq cent euros yooyu ko jëndee bi ci kaw rek ma xam ne ñëwagul comprendre mais Siri Diop amul encadrement bu baax parce que li ko Matar Diop suba teel moo koy digal yaa ngi dégg kan defal lii mu def defal laa mu def gaara waaleel Wally Seck dégg naa ko muy gaara waale mhm. naan moom du baayu kenn du ndayu kenn mhm. yow Sidi Diop yow xam nga ni Wally Seck mooy sa baay bi ngay taxaw naan kaan euh, mon père Wally mu lay yëgal ci ay seenam booba temps kenn xamula Seck Sidi Diop moo la am na koo xamante ne dafa jàppale Sidi Diop ba dara dul dara muy lulu njaago mu koy nuyu de passage mhm. xam nañ koy loolu mu sëñ Fallou Mbacke mhm. waaw loolu mu sëñ Fallou mhm. ngaago bëgg sëñ Fallou ba mu jeex dafa jàppale Sidi Diop jëlee ko te àll bu xonk ba pënd ba indi ko Dakar Sidi Diop keroog ba mu amee moom la njëkk a ko teg ko nee aar bi boo ci nekkee da ngay baax yaru boo yarawul yeewoo alalu borom barke ngay doon xam nga Matar Diop borom barke la yàlla may na ko am na alal day manipuler booy yi lu mu leen wax loolu la ñuy def te Matar Diop suba teel dafa bañ Wally Matar bëggul waali dama bañ waali sek te mariage may sa biige def ko waxu ko mhm. def ko waxu ko même bu sekkatam mii ngay gis mhm. muy attaqué waali sek Matar a ko yónni Matar moo leen yónni bandi la wuyu la kacapaa la mhm. xanaa xamoo Matar rey nit rek la deful ah bon wuyu bu mag la moom moom moom euh, label bi Matar soko li ngay wax garaaw na de policier yi jënd gorjaa si ñëpp la jënd bandi la wuyu la xam naa li ma la wax soko li ngay wax yéeme na de ah nii la de nii la bi demee moom laay wax man Sénégal ku ma baax na baax na ku ma ni bon na bon na su ma nee Wally Seck baax na parce que Wally dafa baax. mais sa foofu sax la ñuy ñëw foofu sax la ñuy ñëw sa relation ak Wally Seck lu ci ne. Wally dafa baax waaw Wally day nit koo xamante ni macha allah ci man dama naan koo xamul noo koy def na mu la dafa tax. Mhm. ndax Wally man bëggeewu ma ko ngir ay way mhm. Wally sama xarit la man Youssou Ndour mooy sama fans. waaw ba ma juddoo ba léegi Youssou Ndour laay déglu. Mhm. man euh, maanaam. Youssou Ndour man maa ko bëgg sama xol. loolu yàgg na depuis temps booy. Mhm. dama judd rek ràññee ko. Mhm. xam nga bi may tukki waale wayul. Mhm. man bi may tukki waale wayul. ñëw naa Europe def fi huit ans waale commencé def musique. donc waal yi tey yàlla sunu borom moo. na ku may woo ci suuf maa lay ñëw léegi ah ayca. sama la ak moom ñu waxtaan mhm. bokk jotaay mhm. yaa ngi dégg mhm. muy ko koo xamante ni tey mën nga ko waxal lu nekk ci boo ko xamulee waaye waali boolewul ak dara wax ju bëri liggéey la xam jaamu yàlla la xam jàpp julli woor dimbali boppam ah dimbali ay moroomam jëndal yaayam kër tabaxal yaayam dimbali yaayam may ko pat ak mu ciy dawal mhm. ah waale li muy def ba am ñaanu wayjur li mu am nii ñaanu wayjur moo ko ko may ñaanu mhm. wayjur mama jaaga dafa sonn ci kër papa Thione Seck mhm. yàlla yàlla fayee ko Thione Seck Thione Seck woy na bay bëgg a dee ma masul dëgg bërsi yala da ko fay ci doom ji waali waali tey fu mu toll nii waxuma la bërsi waaye Sénégal Europe saal yi fi nekk yëpp raatanal na leen Sidi Diop dafa war a xam ni fële mu demoon di jéem a jiite ngaas waali Seck foofu ca bërsi ga foofu Sidiki Diabaté moo Waly moo invité Sidi Diop te mhm. Sidi Diop li tax mu dem Bercy xam naa ko Mbayang borom jinne yi moo ko jox téere Bayra. Mbayang te Waly Seck moom dëgg na Bercy. Mhm. yaa ngi dégg. kan mooy Mbayang borom jinne yi kan mooy Mbayang. mais yàlla moo ko fay ci doom ji. Thione mhm. Seck. la yàlla fay ci Waly. kan mooy Mbayang borom jinne yi. Mbayang borom jinne yi. day defar ay bayre lay di joxe ay bayre bu la joxoon bayre tey fu toll nii kenn dootul dégg abano stress foo toll ci àddina bi di jëmoo di jëmoo di di jëmoo yow rek la ñuy wax. yaa ngi dégg léegi yow yow léegi yow man may sa may sa animateur ba lan ngay xaar pour boole mag Mbaye. dinaa la borom jinne yi. jeex na waaw moom ci TikTok bi boo bindee boole mag moom rek ne mhm. ko may sa animateur. ay bay de 2 millions bay de 3 koy fay. Sidi Diop. loolu koy fay. ñu de boobu bu ma ko defalee koy fay. jeex na. alors soo ko kontaan nañ ndeysaan loolu am na kontaan nañ soo ko kontaan nañ bu baax beneen ka bu amee ñu daal koy traité. jërëjëf jërëjëf daal nañu tàppe xol yi. Mhm. nga xam ni Sénégal benn bopp la. Mhm. fii réew mi réewu Macky Sall la te sa Macky Sall la bëgg ci réew mi. Mhm. waaw boo ko weddee nga xool ñi fi indi woon musiba waa patriote yi tëj nañ leen ba tëj seen i président fu mu toll nii kenn taalul kenn lakkul Macky a ngi di tabax na Sénégalais yi nangul Macky Sall. te ñu nangul li yàlla def ci mom muy suñu njiitu réew. Mhm. waa Choco man daal loolu laa wax. Choco ànd ak yar ak i teggin te xam ne ma ku fi mhm. am na police mhm. am na kaso am na am na cent mètres feesugul. Choco balaa balaa bal ba àndandoo ñaanal sëñ Bada yàlla na yàgg ci kaso bi. benn ma doon saaga dañ ko jàpp tëj ko. ku mu nu mu tudd nu mu tudd. loolu laay daanalee. mais balaa balaa balaa nga Kéemaan yàlla na ko ko. balaa nga ñu bàyyi balaa nga ñu fa sàcc un million sa xarit awuskit yi temps yi mi ngi yëngal réew mi te new fi de. waaw kooku mooy borom Dubaay kooku la Macky Sall wóolu doyloo ko woo ko ba Dubaay mhm. yaa ngi dégg recevoir ko mhm. mu toog ak Marème fay Sall mhm. toog ak APR yi wax ak Macky Sall ne ko man mii awuskiti dama la daan compte daaw ma la jàppale bi ma xamul woon maa ngi nekkoon ci ñoom Ousmane Sonko di la yàq lu mel ni keteme waaye maa ngi tuub di jéggalu président Macky Sall xol bi rafet na xol bi laab na Mhm. mu ne ko awus sama doom la mhm. awus ne ko Macky Sall yaay sama papa. Mhm. lii yoonu Sénégalais yi lu ci seen yoon nekk. awus du Nigérien du Ghanéen. du Malien. Sénégalais la. Sénégalais nit day juum nit bu juumee bu tuubee ñu jëggal ko nit day nekk ci yoon boo xamante ne xam na ni voie bii mu jëm baaxul. bu demee ba mu yàgg mu retourné. di jël ci yoon bu baax bi da koy may sens. Macky Sall valoriser na awuskiti invité na ko ñi ciy wax nii yëpp mhm. xamuñu ci dara mhm. man rendez-vous bi man mii soko man maa ko taxawal mhm. man mii soko maa taxawal lépp man maa nekk derrière tout moo tax boobu ba léegi waxuma ci dama dama wax awus ma ni ko bul tontu aadamoo bul tontu réseaux sociaux yi bu la kenn woo di la defal interview lépp luñ ci war a leeral incha allah man Soxna Westere TV dinaa taal sama live nga dugg fa leeral fa lépp Mhm. mais lépp man man dama téye dossier yi à ah, mai waaye mhm. xam ne daal awuskati nekkatul élément Ousmane Sonko léegi élément Macky Sall la te Macky Sall mooy njiitu réew bu Sénégal te mhm. njiitu bu Sénégal ki mu àndal ki mu doyloo mooy Amadou Ba ñun ñëpp Amadou Ba la ñuy xaar incha allahu rabbi wasalaam. wasalaam Soko kontaan nañ bu baax a baax. amiin waay amiin jërëjëf.